waa سميته محمدا وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا حتى بنك وإداء النور خيد الذي يمبكورا الإدا والنور قائد لهزيهم مفورا قائدا نادي إلى الإيمان والنور أن بعد علينا زدة خائد يقدر والقناع unti Alwanjur andaman Ke usni Lalila isana'an سرا وجهرا دواما أنت أنسي سرا وجهرا دواما سنين على لسنا جهرت أنسي رن وجهرت سنين على الإسلام جهرا وأفضل كتاب ارمي أهل حبيبي وخليلا قبل تبيلا يا كتابا كريمي أنت حبيبي

كل العبيد ومفخرين يا رسول الله أنت إمامي رأي إمامي

Yeah.

الصفا من غير سلام نعم إمامي سرمدا مخافا الله سرمدا للتقى خيرا لا من نحمة إمامي خير القديم شيخنا أحمد فل القدم شيئنا أمدون فالفلين بك ورنانا دل سند خير الخديم ربنا أمدون فالفلين ku fi nekk te yëg ni sëñ Bamba la moom dugal njukkal sëñ Bamba ca kaw jar na ko ma ne ku fi nekk te yëg ni sëñ Bamba rek la moom jugal sargal sëñ Bamba ku sargal sëñ Bamba yàlla nga ñëwaat déwén war na noo dellu sant xayrul xadime war na noo ahmadoon fal filmi ku fi nekk te bëgg a la xaalis lambal addi sëñ Bamba ñëw jox ko sëriñ jàngkat bu mag bi waaye lambu leen addiyee sëñ Bamba ñëw jox ko Serigne Khadim bu leen ko wutalee bu ko ko jox yàlla nga bari la ci barkeb sëñ Bamba war na noo dellu sant xayrul xadime شيخنا أحمد نفل في العين

زيد القدم شيخنا بك بايدام أحمد نميلا ندانو on yóbbal ngëneel yu taaru ci diine lanu tanu bonu riddi bay dam ahmadon may lanu tanu onu yóbbal ganeel yu taaru ci diine lanu tanu baay daam ahmadoon may la nu daanoon nu yóbbal ngeneel taaru ci diine nga feeñal yaa di mbër yaa nu tàggale naan ko ne ci koppi bada ay sa yaa di mbër baake yaa nu nandal ci koppi weeri nga yaa di mbër yaa nu tàggale naan ko ne ci koppi la ay sa yaa di mbër yaa nu miinal ka bee ki kaasi ataaya tàggaleeg naan mu ne kafe ki kafe ataaya bileen baa nik ku ton ni ni wata samo warakan say ku bamba ku yel diine kutonini tasamu tasamu warakan Nanukan Saya hupak baku yeldi Madu bangya Nanukan ẹsẹ̀ kó pàgbà kúrò yẹn. Sẹ̀yìn kó pàgbà kúrò yẹn. Kuya dina Tumbi manye na nukan Hey, kupa bakuya dina Say Baba Kuya Dine Kuya Dine Kuya Dine Kuya Dine Say Baba ìyàwó wà yà kúta bọ́lẹ̀ náà zọ jìgẹ́ ní òórùn lóyìn bala ayé yanu kúta bọ́lẹ̀. jërëjëf xubaba ahmad kawsi Mbakke jërëjëf ay xub Bamba Ahmad Xawsi ku xam ne la sëñ Bamba defal jógal taxaw ci kaw màggal ko kaw wax sëriñ Bamba jërëjëf jar na ko Mbakke jërëjëf ay xub Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf ay xub Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf tuban rama da qawsi baka dogo nak mbaa kebal hami misikine baka dogo nak mbaa kebal hami misikine Cennetim bak bak Müzikine Müzikine ne bak bak Müzikine Müzikine ne gene gene gene gene gene bal dina gi xam ak diine bal ci néegi am بلکہ نیک غم ادینے xol xol def jëjë fel lanu waan yoonu mag di am yërëm ndaw

ko ay dootul ziyaare keneen dëggoon na ko aj ci yaare keneen yàgg sunu irdo anu doy ci muqaddam bala asa yaanu doy yàgg sunu irdo anu doy ci muqaddam sunu perdo wa anu doy bakke bala ya du doy ya du sunu ismullah ay doy sunu ismullah ay doy

teewali li lam ni sangoone ana xaw rey bi daay dekkal waaju dekkal waaju ana xaw rey bi daay dekkal خور بداية Budukan ya nongi kumbal taifon Budukan ya nongi kumbal taifon buddu kon yaa waa mi buddu jaar neene waa mi buddu jaar waa mi buddu jaar neene đàn ăn bắt cho được con sodaan munjam anne bakyo budu konia sodaan munjam anne munjam anne budu konia sodaan ăn anne dugal yoo daal dama ak neene yoo ay sobre yaa di jënd bu jaloor bi feeñ ci dunya dugal yoo daal dama ak neene sobra nga di jënd bu njaloor bi fee nga ci duniya kon yoonu daan bi jama ak ne di jënd bu njaloor bi nga ci duniya

boromam nga boromam xam na yéeti yé yor nga taajul kiraame nga boromam nga ilmu diraaya am nga yaqiin Bakki man nga boromam yow rek a daane mbar yow nga fi diine Mbàkke mbëri diiwaan dagaale wul la jigéen bi rek a daane mbar yow nga fi diine jigéen nga fi diine Mbakke mbëri diiwaan te daala wul la jigéen bi yow rek la ne mbëri yow jigéen bi Mbakke mbëri diiwaan te daala wul la ci géew bi Mbakke mbëri diiwaan te gaala wul la ci géew bi aw rek dana mbëri ya am nga fi diine

sëriñ diwaan kon ana wala ci yow diina yow rek na mbër ya um nga fi diine jigéen bi jàmbaar ja yow rek na mbër ya um nga fi diine ja yow rek ne mbër yow ja ci diine ne mbër yow ci diine sa morom yow rek ne mbër yow ja ci diine yow rek ne mbër yow ja ci diine yow rek dana mbër yow nga fi diine ah. Yürek dönem bir yağım öfidin na mbër ya ak fi diine na mbër ya ak fi daan mbër ya hum fi diine hum fi diine yow rek daan mbër ya hum fi diine hum fi diine ji yow rek daan mbër ya hum fi diine Just put the hijab Kenapa Al-Sahidul yang orang tua Kenapa Al-Sahidul yang tanpa Just put the hijab di Bamba al na do jaramtu jarama mam se di Bamba lu borom aku ba jibu day jim a ikote ipsuko ma faal dani dël jan xibra am nga ngërëm rahib ma faal dani dël jan jaarama maam Cheikh rahib ma faal dani dël jan بابا أدعي كل حرم شيخ ببرا عند غرم لكن ما بقى أدعي كل حرم يا رب مامزيخ lagi bapak ini kerjaan barang doang Raja Bazak Ibrahim أكبر الإنك الجبرنت الله دار ممسي أكبر الإنك الجبرنت الله يا رما يا رما شهر أكبر الجبرنت الله جرجب ممسي إبراهيم بابا أنا يا رب مام بابا أنا باي باي جيرو جبا سيخ إبرفان رحمة بابا أنا باي باي هرمتو جيرو جبا سيخ إبرفان

xarbaa قد على القدم والعربان مجيد عبد المجيد بكتاب عزيز من عزيز عبد العزيز اللوتو من آوى خربان عزيز عزيز المعزز القرآن من عزيم يقي كربا لا حبوا

ثم لم يزل خطبان نبي وعمل دوام شكري وشكري واللوبا من جديد

fi niya tax ba حرمة أبي واكفني بددا دهبا النبي مع المصطفى المختار من لم يزل باب سيردني خادم الله بالنصر وناصر الجنة وربي القلب بالنصر والنصر خدمتي ما دمت فكون بي من صادم هرد لي

سوسي دوما جنابي في نبا البر والتقوى

ki haaj ki billa gulbatin bhini jasta dila gulbatin bhini wa apni bhi ill jasta gulbatin wa apni bhi jasta kon nag mu ne sëñ Bamba ay waaj a jugal màggal sëñ Bamba ca kaw lépp moo ma da jug leen màggal sëñ Bamba. jës ba abila ak bëliyeen bi nii waa abli bi il jës ba. abila ak bëliyeen bi nii waa abli bi il jës ba. والبديل ضعف لي بكل إصبار بلا كل وليل ضعف لي بكل إصبار أبو المنير وأبو اللي إلا جسدان من عربي جميعا وخني إلى توبة وناطر في الجدبة وعاجل خروجي من ربي جميعا وخمني إلى توبا وعناز في الجدبة في سعيدا نوسوا سرمدا ووجه لها الخيرات والت من التربه في كل معاد وفراق النوار تربطت تربان أخي دار سلام التي بها راجيك خدني حاجلا واقفني عربا سلام لبوس الخلوة وسر جانبي دوام حبلنا روى الوداع والخربى إلى

بربي يا ربي والخربان وبربي منجود خوخت آوا جلال وابلا منصبا أمة وبرب يا ربي دم يوم يلاقي اللي داد الباب حديثك قد يوما وفي الأداء والغار وزنبا عالما لك سكور والردوى مني وسعيدي رقيب أتيد في الجسيرات ما ينبع رضوان مني رقب عتد في الجسيرة ما ينبع رقب عتد في يسرات ما ينبغى ku mel nii ku am leen moom ne leen wóor ne yaa ko daawoon am leen moom yaa ko tooñ ku mel ni ko am leeg moom na leen wóor ni yaa ko tooñ am ko tooñ ku mel ni ko am leeg moom na leen wóor ni yaa ko tooñ yaa am diin ku am diin ku am diin am di Bajee شيخ الخديم دو يو دانا داني كدو يو دانا داني يا أمديني Yeah! ku du yow daana daane daana daane yaa am di شيخ المركز في اليمين يوم تبيض دفل سين وجون بكراوغي مريدي املا لا يوم ندو يرم كل ناس فمن تبل في جنة الخلدين bu nu dekkee ba jëm siraat nangu nu wammat ndax nu far raw melax guy gaf ciw xiini bu keroogee teral nu teeru nu ci ñam ta nangul nu jigéeni muurul xiini nga la Muusa faral taxaw lu tëbul wey تنغ فرجلي وقت وانغي غوني مبانغ وقصل ربي خير صلاتي بسلام على النبي الأمين مع الله وسبي وخديمه ak i doomam yi nuy defar filini sëriñ Saalihu jooy naa ko jooy xol foor man ñàkk naa wurusu foor jant la moom moo tax mu muur leeru biddi aw xamal Sëriñ Saalihu sunu cëri weet xoli weet dari weet këri weet yëgal ni tey ji fépp weet kuy weeti leeti amatul رساله مسكين يدي نبنجي جاي jirim ya ak faqiir yooy gone ya ak kenn xamatul sëriñ Saaliw dongoy day ji ñëpp a ngi jooy murid yi ñoom ñëpp a ñëpp ko jooy ku mel ni moom taxawatul dongo yi tey ji ñàkk nañ ma ngi kasaawa ko ñàkk nañ fu ni jëlee téere waaja daan fo bi gone kitam tamal aduna yaawa ku mën a wor xamoo ku baax xamoo woloor lu fi taxaw danga koor saw melokaan amul solo alaaji falliloo aljuma tey kasu rajab la tàkku jundu lillaay dar ko mbar may bàkku sëriñ falliloo aljumatay kasu rajab la takku jundu lillaay jundu ko mbër may bàkku nee keroog daam dani buñ ko nampal fee gente buñ ko jox toqantal bisu keroog isa waxoon ni mim jureel raw na buusa bur bam defoon ba mën a waxta mi mur moom mën a def keroog Sëriñ Falilu mën a woor amul lor bi ka tawayna maalun nasutaaxu أصلى عليك الأكرم الخلاق ba bis dellu seeñu dal di koy ngénte làmp ni liir bi liir bi dana toog ba yaate bu mag ba moo ko faadilun mu yor ngeneel doon faridun kaamilun Cheikh Bamba ab ju njam du moy ni faadilu ba noppi muy maf doolu mbaa muy jaayilu mënula am bu kenn werante baaxam walaay man xam naa ni sëriñ Falilu moo di biyaaram wàllu booca waa soobee te ay sërif lanu bilaabe jërë ngeen jëf mbooloo mi jërë ngeen jëf jëm si ci mbooloo mi fi daje yépp rawatina daayira bi nga xam ni mooy daayira ma fatixul bisri ci njiital sëriñ abdullahi taal ak jëwriñ sëriñ mamma njaay ak soxna naatu ak mboolem soxna yi soxna alimatoog ñépp ñu siyaar leen jaajëfal leen ndokkeel leen ci bis bu tedd bii nga xam ne bisub mbégte la di bisub sëñ Tuubaa boo xam ni nun ñépp mu ne nu bokk daje fii ngeen baal ma déglu ñiy wax ñëpp nañ bàyyi coow li eh bi mane ne eh añu leen coow li mu doon bis boo xam ni bis bu ñu ñor la ndax ñi koy taxawee ni nu demee ak ñoom suñ tubaab boole nu ay pas-pas ba tax ak mu ne nuy dagg suñuy yitte ci biir koor gi ak ni mu xate di ñëw fii di leen fekk si fekk si goo xam ne fekkee mbégte la ak cawarte ak jàpp ni itam Sëñ Tuubaa ci noo leen di sant bu baax noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di ñaanal yàlla barkeb xasaay bi di beleen nuyoo sëñ Murtada Diop imaam ratib bi nga xam ni moo nekk fii ci kër sëñ tuubaa gi di ko taxawee di beral nuyoo sëriñ Papa démb Diop mi nga xam ni moo fi nekkal sëriñ bi di beral na yoot sëñ Mor Diop mi nga xam ni moo fi nekkal daarul xudóos ak mboolem jëwriñ kër sëñ Touba yëpp ak mboolem jëwriñ ñi bunti kër sëñ Touba yëpp ak bunti kër Cheikh Rafal yëpp ak bunti mboolem seexi sëñ Touba yi noo leen di siyaara bu baax yéen ñëpp siyaara jànkati xaside nga bay ba ndindeel maam jigéen ñi mbooyal naanu nga bay ba ndindeel mbooyal naanu waaw bay ba ndindeel maam jigéen ñi mbooyal naanu nga bay bandinde boyal bay bandinde nak jigéen ñi boyal bay wara jariño nga bay bandinde jigéen di booyal lanu waaw bay ba dinde la jara jigéen ñi booyal dara bay tam bay ba dinde bay balinde soxna si jaara maam jaara maam jaara maam jaara maam jaara farla sando ay kara amma si jaara maam jaara jaara amoro masa amoro me yako waral sando mare kara ma si jaara pa maam jaara maam jaara am jaara am jaara mu xarala sa doom day kara am ma am jaara jaara amoo moroom masa am moroom daa ko waral daa ko waral sa doom rey karama ku sa jaara pa maam jaara maam jaara am jaara pa maam jaara waral sa doom rey karama jaara amoo moroom sa am moroom yaa ko waral sa doom buri karaama sa baal jaara pa mam jaara mam jaara pa qaapa mam jaara la ilaha illallah bisu xiyaama

di sant rek yaa yaa ko waral sa doom may karama sa bandi jaara mam jaara mam jaara tey ay jëri fati mam jaara faral sa doom mam jaara tey ay junne yaa ko waral sa doom jumal jinne jërëjëfati maam jaara artul jërëjëfati maam jaara la la la maam jaara jime jime jox na la jikko akal nga amu doy ba mu doy akal nga ba mu doy la la fujura waajib gi sa baara yakal nga waajib ba ñëpp gi jël ma fujura bay kan nga bay nga bayoo lay lay la la lay la la karabudo ba bay paninde ay kan nga bay nga ya dindan ya dindan Yeah. yàgg bi batin a Muntaqa yàgg bi da koy ñaan ba abadan yàgg bi ay borom Touba ëllëg yërmale sayran batin si Muntaxa noo ngi la koy ñaan ba abadan laaj borom Touba ëllëg yërmale sayran batin si Muntaxa yàgg fi la koy ñaan ba abadan yàgg fi borom la ilala dimbal yërmale abay sama aziroy saba la fi borom Tuuba dem rahmatan min allah albadihi xayru min addunya wa ma fiha jami lis ahmad alxadim radiyallahu anhu wa nafana barakatihi fi dunya wal axirati dunya wal axirati dunya wal axirati amin ya rabbal alamin addi Sëñ Tuuba Sëñ Tuuba rek sant Sëñ Tuuba سميته محمدا وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا